ñu daal di koy door euh, Alioune euh, Badara ak ponk yooyu ñu daal di jukki wala xew ca Fatick dégg ngeen euh, la ca daal di nag yées sànq ci suñu jokkoo ak Ngor Sarr waaye itam wàllu homosexualité bi njiitu réew mi Macky Sall daal nee na. suñu réew du ko daal di nag nangu ndax wàllu nag aada ak diine bokk na ci itam dialogue bi ak article yooyu quatre-vingt ba ci arrêt Ousmane Ngom yi tax yëf yi daal di bloqué donte ñeneen ñi jàpp nañ ne du tey ñu daal di wëyal waxtaan bi ñu jël ko jiitu ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man la Chérif. waaw ñu ngi lay nuyu Chérif. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allahu azza wa jal mu wàccee jàmm ci Sénégal def ko ci réewu àdduna bi yëpp. waaw Oustaz eh, Adama. Mhm. man je crois que ni ñun sénégalais dañuy nax suñu bopp quoi. ndax parce que xam nga ku toog di wax nii. président Macky Sall ñeme na indi daganal góor jigéen Sénégal yow sa xel ngay nax naxuloo sénégalais yi suñu indi woon un animiste ñu teg ko ci bopp réew ma wallahi lazim ñemewul daganal di eh, eh, di góor jigéen ci Sénégal ñemewu ko c'est pas possible kooku amul benn tubaab bu mën a suñu réew mu ne daf koy daganal de góor jigéen amul même bu ñu fa tegoon un animiste sax ci bopp réew ma waaye bu ñu nax sen bàyyi leen nax seen xel yi ah iman ku gën a tuuti iman ci Sénégal ku fa gën a tuuti eh, iman ma bokk ci sax duñ ko nangu waxatuma laat ñi nga xam ni ki seen adduna yëpp seen iman dañu reyante ci diine gi ba ba taxawal diine gi foofu mais nañu bàyyi caaxaan yi beneen bi mhm. ñu ngi naan nañu eh, eh, nañu génne article quatre-vingt foofu mhm. sénégalais est-ce que ñoom dinañuy xalaat dégg a sax am ñoo xam ne ñu ngi toog foofu naan waa White House fii White House dañ fay dem di fa di fa manifester est ce que xam nga lan la américain yi est ce que xam nga lan la américain yi da lan la ñu affaire en mille neuf cent soixante la ñu génnee fii loi ségrégation boo xam ne ci nit ku ñuul mu amuloon a droit dugg ci oto bis nga toog ci toog tubaab bi tubaab bu duggee ci bis bi day ñëw toog nit ku ñuul bi jóg mille neuf cent soixante lañ ko génnee te Amérique depuis trois cent quatre cent ans la ñu am seen indépendance bu ñu kenn yëpp naan ñu dañ ciy génne loi quatre vingt sénégalais àggagul fu ñu tolloo nga xam ne dañ leen di bàyyi ñu dem ci palais bi ñu ne dañuy dem di manifester wu àggaguñu foofu Senghor waxoon na ko l'émotion est maigre leneen nag du ma ko àggal waaw euh, ñu daal dem ci keneen ci ligne bi allo de euh, demoon da ba yegg si ñu xaar mu dellu si waat soosé 88 628 98 98 jàpp naa allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. na ngeen def bien. waaw ñu ngi fi waaw. almahdi wu Kaolack. waaw ñu ngi lay nuyu ak donc euh, premièrement homosex homosexualité. Hmm. bon pour man bu amee ñu ko nekkee. Hmm. terewul suñu réew boolewu ko ci li nit ñu war a yëngoo ci seen dundin. Hmm. ndax li mu araam ci dundu jaamu yàlla yi ñu ci war a dëkkee. en matière d'identification sexuelle, mmh. on est homme ou on est femme, mais mmh. pas à la fois. Hmm. kon président Macky Sall li ko war la def. jëm hmm. ci leeral adduna yëpp liy taxawaayu suñu réew mbir moomu. Hmm. nga xam ne amul barkeeg njëriñ ci dundu benn boroom xel kaw suuf ñu ngi ko ciy gërëm. deuxièmement la xew Fatick. pour man day wane ne citoyen yi war nañ sexe fu mën a toll di moytu joteeg ak der yi dégem hmm. seen liggéey mooy aar askan bi hmm. et que fu ñu digaale luy jur euh, fitna seen diggante hmm. ñu xoolee bu baax dañuy gis ne ñàkk a loi ak ñàkk leen may cër ci seen liggéey mooy waral loolu di am te kon tooñ bi toujours ci côté citoyen yi lay féete nañ xam ne Sénégal réewu jaamu yàlla la te jaamu yàlla warul gàtt xel ci ni muy jëfandikoo ay droit hmm. ndax ci yoonu njub la yàlla yeew dundinam hmm. li mu war a yëngu ak ci jëf ju baax jërëjëf ok euh, sëñ bi wootee ca Kaolack jaajëfal ko Socé ñu xaar keneen ci réew mi bitim réew ci la ñu bokk ci 33 841 22 33 ñu jël keneen allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. allo man man la waaw. yéen maa ngi jéem maa ngi lay gasama. waaw ñu ngi lay nuyu gasama. waaw ok Maodo bala ma yàgg ci yow xam nga ça fait trois ans moom nga wax ci affaire góor jigéen yow nga laaj moom man la ñun ñi xel mi mooy xalaat gis na maam Adama. Sénégal dañu xam li ci li dul jas li ci diaspora bi. gis nga suñu toppul ñun suñu culture bu njëkk Sénégalais dañ leen di naw mais gis nga ñi ci àll bi. loolu ñu daganal go loolu président bi bañ dina am ñoo xamante ni Canada ñaata milliers de nit ñoo fa nekk nekk ay immigré est que xam nga réew mi man li ma gën man nii sant Gassama du ma ko nangu sama mbokk du ma leen ñu ne xaalis boo xamante ni man ñàkk ma am na ñoo xamante ni li tax tubaab bi di ñëw di laaj président loolu dafa am ñoo xam dañuy mbubboo ay góor jigéen lañu étudiant la ñu doon baal leneen ñëw ci dëkk tubaab yi nit ki nag soo ci dëkk li ngay liggéey teg ci sa njaboot dundal leen ci xaalis bu xam nga dëgg bi dañ nañ koy raay raayoo président bi dara la ci deful fële moodu moodu ñoom ñooy dem di laaj ay gëstu ci loolu comme xam nañ ne Sénégal dañ koy tere looloo tax kooku jëli bagaasam ñëw di wax ak président bi ñun ñu nekk intellectuel maa ngi ci àll bi nañu wax secret bi nekk ci àll bi loolu moo andi nit ci Sénégalais ci boppam doo dégg benn nit gannaaw saa si wax na ko ay Sénégalais lañ de doo ci dégg turu beneen yéefar kon bokk nit ñi nañuy dem ci ngor di yónnee sa waa kër xaalis bu la lew nga xam noo koy def mais dañ koy déclarer te nekkuñu loolu pour bëgg a ami fii man nag ngor daf may fekk ci xaw ma lu ma wax du ma dugg ci loo xam xamante ni erreur la wax ji loolu la sénégalais seen bopp lañuy yar seen bopp xam fi ñu jóge xam fi ñu judoo xam seen i xeet xam li ñu yónnee seen i mbokk loolu rek mooy problème bi maam Adama bu ñu tooñ président bu ñu tooñ tubaab bi ñoom ci sénégalais seen bopp seen bopp ñoo def loolu c'est ñu daldi di kon nag euh, xaar keneen sosé ñu jël ci ligne bi biir réew mi bitim réew 88 628 98 98. bëggul nga dee jàpp naa dootuma bàyyi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si. waaw sëñ Adama ñu ngi lay ziare. waaw kay ñu lay ah, ziare. di naqarlu la xew Fatick nag. di ko métti lu torop ndax Sénégal yi mo wax dëgg yàlla ñu leen war a aar buñu demee bay am ak ñoom yi jafe-jafe hmm. te ñu leen di fayee suñuy impôt la ñun ñoo ko moom ñu ñuy aare ñii fi nekk muy waa APR noonu la ñu war a war aar Sénégal yi te bàyyi dóore bi dóore moom moo gum jëmm boo ko jàppee mën nga koo def leneen lu dul dóor waaye di ko toroxalat di ko torturer ki yooyu moo fi war joge jógee beneen bi nag ah, ndax naan borom ñaari tur dafa war a am Sénégal hmm. eh, boo jiitee Sénégal war am caractère goo xam ne nii kenn du la ko laaj ndax président Amérique ñëw na fii tey jii kii xaw ma premier ministre Canada la xaw ma yow boo demee seen réew yi kenn du la teeru yow nga leen di dem di teeru doo yebal si benn ministre wala nga mu dem teeru leen waaye yow yaay dem di leen teeru ba di may kanam yoo ñu di ko fi wax ndax boo gisee tey ministre de la femme de yàgg na fi waaye de saar gii ñu am te saar gi li léeraluñ ko kenn musu ci am permis yi ñu xëy dañ daan def permis góor jigéen waaye tey permis yëpp saar lañ ci def la tax ñu leen di defal yenn yi ci suuf bi moo tax ñu koy sañ a wax ci kaw waaye suñu réew mii nag ku ñu mënti jiitee ñun duñ ko nangu ñun Sénégal yii si nekk nga xam ne Sénégal sëñ Touba la Alaaji Malick maam Limaamu Laay maam Amari Ndaak Seck ca cene ba ñun ñëpp dañuy takku seen sët yaa ngi nañ jàmm suñu maam yi ñooñu jàmm kilifa yu baax yooyu jàmmaarloo woon ak tubaab bi ñoom la ñuy jàmmaarloo mbuj mbujaan yeeg ku leen mën nekkali bu ñoom ñaari tur am tey du fi am ëllëg ku yàq sa jikko nag doonu Sénégal dem def sa bopp juróom-ñaari waaye kenn du ko fi am kenn du leen ko daganal duñ ko fi daagoo duñ ko fi waaxoo ndax Sénégal nag moom lu baax rek la xam xamuñu lu bon xamuñu ñu ñaaw jàng arxuraan rek la ñu xam bu àjjuma jumaa yi fees dell mbaax gi nekk ci Sénégal diine gi nekk ci Sénégal ak mag ñu baax ñu ci jaarale amul fenn Sénégal la am kon kenn duñ fi indi dara yu ñaaw ba pale ba nag xëy na daa am ñu fay mars ak ñu dul ndax waa Guédiawaye yi nga xam ne dañ doon wax nañ takkal Alioune Sall ndomb ak tànk dañ leen a ne jox leen xaalis kon nag Guy Marius Sagna nga xam ne mooy xeexal réewam bëgg réewam. mu nga ko daal nay matal kon ay simileem ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi sosé. allo allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz Adama. waaw. ndongo la Baye Cheikh Diop lay woo. waa ñu ngi lay nuyu. nuyu di la siyaare. waa nuyu sa technicien. Mhm. di nuyu waa Sénégal yal na yàlla teg ci eh, buntu xéwal rek mm-hmm. ndax réew mi moom xéwal rek moo fi war a mën a am mm-hmm. ndax coole bari na waaye tey jii lii yàlla def na président Macky Sall wax na la mu waroon a wax mm-hmm. eh, jëf na la mu war a jëf ndax li mu wax na leen li féeg maa ngi fi ndax am ci na waaye citoyen Sénégal yi am na ci loo xam ne nii citoyen Sénégal yi duñ ko fi bàyyi duñ ko nangu ndax ay kilifa diini ngi fi yoo xam ne nii wax dëgg yàlla am na loo xam ne nii am na loo xam ne ku ko a war ngaa am looy rus war ngaa am looy jomb waaye nag moom président gàcce ma moom la waxay jotee dina wax bu jëf jotee rek mu jëf kon loolu la ñuy doyee président de la république wax ju bari moom daanaka amul njëriñ ndax euh, état yi fi génn yëpp daanaka li waram njaay di wax rek jëru topp toppaat ndax gis nañ nañ daan doxale hmm. ndax tey ji am ñoo xam ne ñoo taxawoon fii ci public bi li tax pour euh, askan wi ñeme euh, policier gendarmerie ndax te ji ab leader moo taxawoon fii ni ren suñ leen dóoree fayu leen suñ leen sànne sànne ceene welo hmm. jël leen ko sànne suñ leen gar naa jël leen ko sànne welo yor leen ay ceene hmm. nag ndegam xale yi ñu ngi koy dégg ba tey vidéo yi di daw euh, muy daw kon ba tey ci loolu lañ bëgg si kër ko waaye gis nga am doolu waaye dañ leen war a respecté jox leen cër citoyen yi nañ xam ne lépp lépp lépp lépp ci biir Sénégal la ndax tey ji boo yàqee fa nga dëkk hmm. keneen du ñëw di la ko defaral te yaa ko waroon na defar kon tey ji xale yi nañ ak góor góorlu xam ne réew mi siinam baax la ñoom la a su sawaan ba amati ñoom la amal sawaan ba nañu góorgóorlu werante bi ñu bañ koo wàññi bu fekkee ne tere nañ lii ñu leen tere muy loo xam ne lu ñu leen war tere leen nañ ko bàyyi dem seeti leen su ëllëgee ñu aw feneen ndax loo mën a gis noonu dañ koy waxtaane loo waxtaane da ngeen déggoo waaye da for force damay manifeste for force man damay jàkkaarloog police yi buñ ma dóolee ma dóolee buñ ma saane ma saani leen loolu du du du du du du duy wax nañ gën a góorgóorlu xam ne réew mi réew la réew mi réewum jàmm la jàmm ji rek nañ koy ñaan mu gën a yokk baax am jërëjëf mu ngoog ñu xaarati keneen jël ko uh, biir réew mi bitim réew allo waaw allo allo waaw maa ngi lay dégg waa waaw Adama man laa ànd di di woote Parcelles Assainies waaw ñu ngi lay nuyu waaw sax waaw ma ne article quatre-vingt hmm. ña muy waxal reconnaître ñu président te duñu reconnaître duñ ko reconnaître ba mukk hmm. kon sunu loi réew duñu so duñu ko soppi pour yombal leen seen yàq-yàq yi yi ñu am ak yéene def ci réew mi loolu du fi mas a am opposition bu fekkoon ne ñoo nekk ci pouvoir bi loolu yépp ñu naan nañu ko dindi duñ ko dindi Macky doful ba di leen jox ay arme yi ñu koy xeexe kenn du fi def loo Macky Sall loo xam ne bu doon yow doo ko def bi ci def lu ne sànni kenn du ko jeex tontu woon na leen ci te tontuwaat na ko ba mu gën a leer nañ Sénégal doxul ci côté yooyu suñu yoonu réew nekkul ci ci yu mel noonu maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëgg a eggali réew mi si lu baax yàlla na ko buur yàlla eggali lu kawe njort sa njort merci Aliou. Euh, waaw ñu xaar keneen euh, Alioune Badara Socé ci ligne bi 88 628 98 98 allo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. mu ngi jaar.

ñun bokkuñu gëm ak ñoo ak ñooñu di woote loolu bokkuñu. Hmm. mais que ça soit mu ñu wax leer que ñun fii ba faw amul ay lu ñu naan pareeguloon amul lu ñu naan ëllëg fii ba faaw ñun loolu du duñu ci loolu loolu duñu ko nangu. Hmm. sunu sunu aada ñu ko sunu diine ñu ko mu leer man réponse man noonu laa bëgg mu leer nañ hmm. lépp loo dafa nekk loo xam ne taxu koo leer rek day day tax day encouragé gars yi ñu ñëw fii. di ngeen di di naan di ñu si jëm a dugal te tu ñu si dugal ah abadan waaw ñun dëkk bi diine la ñu xam euh, avant aada ah, ji euh, avant diine sax ñun loolu lañu mos a xam góor jigéen daal comme ñu ko sa nangu waaw loolu daal laa noonu man ma ma leeral ma leeral bu baax dama bëgg daal suñu deux ans daal di leeral bu baax a baax que ñun fi ba faw da nga ko soxla bëgguñu ko mu leer daal ah, waaw jërëjëf Adama ok euh, sëñ bi jaajëfal ko moo ko wax parcelle moom itam ñu xaar keneen jël ko sose allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi waaw. war a bàyyi ma alfayda Seydou ñu lay nuyu waaw. ñu ngi lay ñaan seen ndox wax yàlla seen di seer Baye Daara Diop kër ma fekk si ñaar ñu ngi di wax ni rafetlu taxawaayu président ci loolu mu tontu. waaye Adama man li ma gën a yéem mooy. liñ koy dox di proposé fii ak di ko fi wax ak waxaat loolu daal li ko waral moom. Hmm. Eh, ku mu jaaxalul war na laa jaaxal. parce que dama li ma gënaloon daal moom. Hmm. mooy ñu ràññi Sénégal ci ci ci contre homosexuel. Hmm. waaw xeex homosexuel ba du ñu xalaat di ñëw fii du ñu ko jéem a proposé bu ñu bu ñu ràññi woon Sénégal ci bañ duñ ko bañ rek yàpp jàpp naa ne loolu du euh, li ci ñëw nag ba fu ñu toll di ko laaj ak a laajaat nag man moom a jaaxal. Hmm. bu fekkee ci wàllu euh, takk der ak ci Hmm. Eh, dafa am loo xam ne day dafay xeetlu tamit doomu aadama bi fekkee da nga war a taxaw ci tali bi hmm. def sa liggéey ni nga ko war a defee te defoo ko di laaj ay xaalis ak yu demee noonu hmm. yooyu day indi yabel parce que danga wàcc sa yoon te war a teg nit yoon day indi yabel eh, yabel googu nag lu nekk la mën a jur te nit ñi itam war nañu delloowaat leen seen cër parce que boo tëddee di nelaw ñoom ñoo tax parce que ñoom ñoo yor sa sécurité te Euh, saa boo jaaxlee ñoom ngay woo kon war nañ leen delloo seen cër ñoom it war nañoo xam ne ci askan wi lañ jóge ci lañ bokk hmm. askan wi tam seenañ jaboot lañ ci jabootu askan wi lañ bokk kon daal euh, jàpp naa ni communication bi war a am ak déggoo bi war a am daal def na bu baax a baax a baax a baax te dañ ko war a taxawee ay ay manifestation yi ñuy def naan ay ay ñoo lànk ñoo bañ li ñu war a lànk bari na te lànkuñu ko affaire politique laa ko jàppee rek. parce que li yokk du du courant donc kon li ñu laxasoo ji ñoo lànk ñoo bañ dama jàpp ni la rek eh, seen bopp ci kanamu askan wi te eh, waaye li ñu a kaas bari na jërëjëf. ok Socé man la Moundou Diop Mbos. ak waa Mbos. Oustaz maa ngi lay nuyu dinuy sa technicien bi nga àndal di ziare Serigne Moustapha Dieng ma nga ca naawel mhm. eh, di nuyu Serigne Cheikh Digal Sène ma nga njàmbur siin mhm. eh, di wax ni nag président Macky Sall mhm. eh, li mu wax loolu la war a wax parce que tey loolu ni mu ko waxee nii dafa gën a leer comme bi mu ko waxee ci ay jamono naan péreguma ko loolu wax ko mu leer moo gën parce que tey boo amee seetlu ñun Sénégal ñi fi ëpp ay jullit lañu am na loo xamante ne si du suñu moomeel góor jigéen moom duñu ko mos a nangu ci mim réew waaye tamit euh, dafa am loo xamante ne si bu ñu ci tolloo <laughs> euh, président jamono ji dafa am lu gën a far parce que di ñu indil ay actualité ñun soxlawuñ loolu di ñu yitteel mooy naka la ñuy def ba jafe-jafe yii nga xamante ne si askan wi ñu ngi koy jànkoonteel nga régleel ñu ko ñun loolu la ñu loolu moo ñu yitteel waaye di ñu génneel ay actualité ñu ci wax dëkkee di ci wax yu loolu yitteeluñu loolu ñoruñu xëy na sax doonte góor jigéen moom euh, méngoowul ak suñu diine tey du fi mas a am doo mas a dégg ne am na fii ci réew mi parce que bu ñu fi amee ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba Euh, am fi ku mel ne maam El Hadji Malick am fi ku mel ne Ñaseen Xaadir ñoo ñu nga xamante ne si dañ fi liggéey liggéey bu yaatu fii ci réew mi kon nga xam ni réewu Sénégal moomu loolu tey du fi mas a am maa ngi leen sant di leen gërëm. Euh, Socé eh, xalaatam la joxe na ko ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko wax sa xalaat 88 628 98 98 allo. waaw allo. salaamaaleykum waaleykum salaam. Oustaz Adam. waaw. Bàcc si Kër Madaar. El Hadj Bàcc maa leen nuyu yaa Sadio Ndiop ak Mbaye Laye. waaw ñu ngi lay fay. di ziar nag njabootu ak Seydou Hadj Malick si képp leen ñaanal jàmm. Mhm. Adama. waaw. Macky Sall daal ay olof yi leeral naññi naññi la wax dañuy dañuy waaj. Mhm. ñëw sunu réew. Mhm. seenu luwaay réew liñ la may liñ leen may. nangul luñ leen di góor jigéen am na droit def lu ne. waaye ñun tam da ngeen ñu nangu suñuy luwaay réew nanguwuñ ko fii mais affaire bi c'est très simple bu xool léegi nit ñi lan lañ bëggoon wax ko mais bu waxoon leneen lan la ñuy wax kon dafa c'est purement simple nee na sax ñu dëkku diine lañu am na ñu ma dégg ci moom ñu naan waaw affaire bi waxuñu loi mais diine mais non dëkku diine lañu wax diine yëpp a fi nekk amul diine bu ko nangu donte dañoo lay mais heureusement am na loi bu taxaw bu ko ñekk daan loolu kenn du ko nangu ci réew mi moom nag dépassé dañu woon pare tey nee na mënut nekk mais wax dëgg yàlla le débat le débat doit être clos. Hmm. rëw boo ko. Hmm. beneen bi aadama. Hmm. gis nga nit ñi foog ñu waxante dëgg. gis nga takk der ñoo yore sunu kaaraange. mais gis nga ay population yi attaqué ay ay ay ay ay takk der loolu moom quel que soit alpha ku ko mën di nangu tey bu subaa doo ko nangu. dama ni le 6 février 1994 Abdoulaye Wade ci centenaire alkaati ay nit lañ comme ñun leen dóoree fayu leen. buñ leen dóoree seen vélo dóor leen seen vélo mais kat alkaati ñoo ci dee. mercredi jën ñi magam ci la faatu hmm. grand juif ñi la ne woon bu bu ci hmm. ku leen bëgg a rey nañ la rey voilà hmm. euh, ñu xaaral si keneen mu nga ko sa xalaat 88 628 98 98 Euh, Socé bu fekkee jeexaaw mu ngi def ne Sydney daal fii lañ ko yemale euh, kon nag ñuy diggati leen daje kon kàttan suñu borom ëllëg ak jàmm jaajëfal ñu woote jéggale ci ñu nekkoon ci ligne bi 22h Adja Ndeye Khady jëw ci xibaar yi ci yaatal lay doon jaajëfal bu baax Alioune Badara Socé mi nekkoon ci sottatikukaay bi mu ci biti ak jàmm biir gudd fan ak wér la am ak mën a fekk ak tal yàlla ko yàlla defal jërë